sëñ Bas ànd ak yow xalif Daaru Muxti di yóbbante nuyoo it sëñ Xalil Mbàkke ak sëñ Cheikh Astou Faye chef de village di bereel nuyoo aku cantit sëñ Bas Abdou Khoudous jëwruñu sëñ bi waaye di beral nuyoo képp ku fi teew aju ci njabootu xaadim xaadim sëñ Tuubaa xaadim rasuul axlu Mbàkke Mbusoobe nuyu nañ ñëpp sëñ bi président de la République Macky Sall sa xarit sa wëllëre moo ñu yabal ci bis bi nga xamante ne bokk na ci bis yi ëpp solo ci yoonu murit muy màggalu Daaru Moxti ñu ànd si ak délégation bu am solo lim nañu ñenn ñi sànq waaye ñu ràññee bu baax a baax sëñ Abdou Mbacke Gaynde Fatma di ministre conseiller ak le gouverneur de la région de Louga préfet département Kébémer waaye tamit ñu ànd ci ak le sous-préfet de Darou Mokhti ànd ci tamit ak El Hadj Dia excellence El Hadj Dia di ambassadeur itinérant ak honorable Mara Diop di haut conseil des collectivités territoriales ñu ànd ci tamit ak soxna Daba Wañ député fi lañ ko fekk waaye it fekk fi sunu xarit kenn ci président Macky Sall muy le ministre sunu mag sunu xarit sunu wóllëre Modou Diagne Fada directeur général la Sonacos di ko nuyu bu baax di teg loxo yi ci nuyoo bi loxoom di nuyoo ci loxoom mu yeggale ko seen jiilu Mbàkke ak responsable yi fekk yépp waaye tamit di beneen nuyoo bu baax sunu sunu rakk sunu lépp sunu naataangoo le maire de la commune de Darou Mokhti Madiop bi tey di nuyu tamit responsable yu fekk yépp politique yi ak boor bu mën a féete rek nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp sëñ bi président de la République daa waxoon bu ñëwee ba ci sëñ bi ginnaaw bi ñu ko nuyoo. ziyaar ko feddali kóllëre gi dañoo waxoon na ñëw fii ba ci moom jébbal ko sunu ziyaar jébbal ko ziyaaraam feddali kóllëre gi ndax ku ne xam na digganteem ak sëñ Bass Anta Niang muy léppam di sëriñam di xaritam di wëllëreem yàgg koo taxawu ci biir ak ci biti wax tamit ne mu ngi sàkku ñaan ci réew mi yàlla yokk jàmm ci ndax jàmm ci la lépp xaj bis bii nag ku xam taarixu yoonu murit xam ne bis bi atana lu ne ndax bis boo bis bi nga xamante nii sëñ Touba Xaadimu Rasuul suñu yaakaar tey ëllëg te dajewoon ak rakkam di xaritam borom daaru moxti ba muy dem mu dénk ko léppam dénk ko njaboot gi dénk ko taalibe yi mu ñëw am ci lu kowe jortam delloo ko léppit loolu moo tax bisu mel ni tey ñu koy màggal di nekk it bis bu ñu war a jànge surtout ndaw ñi ne ci réew mi surtout citoyen sénégalais yi ñu gën a xam bu baax a baax sunuy kilifa ñu xamit seen jaar-jaar waaye tamit ñuy wekk seeni jikko rafet ba pare fas yéene koo roy ndax digganteem ak sëñ bi du woon ak mbokk lekk moo ko lal li ko laloon loolu ci la naam waaye pas-pas ko laloon kóolute moo ko laloon ndax xam na ne lépp lu nga ko mës a def loo def na ko lu kawe njortam lépp fu fépp fu mu jàpp ne war na faa mën a yebal kilifa gu am taxawaay amub taalibe amub fit ba pare am kóolute ci moom yebal ndax ko ba pare am ci lu kawe njortam kon nag day baax ñi nga xamante ne ñoo fi nekkandi rawatina ndaw ñi ñu jàng ci loolu gën a naw suñuy kilifa gën leen a déggal te xam ne amuñ lu lu amuñ leen sut amuñ lu leen gën a feeti kaw président tamit waxoon na bu ñu yegsee ba sëriñ bi nañ ko wax ne lépp lu nga xamante naa naan ko ci dëkk bi ci dëkk waajuram bii dëkk bu sell bi fas na ko yéene ànd ak moom loolu nag bi ñu ñëw wax nañu lu mel noonu ndax yeesal bi ñu doon yeesal kër daaru kër borom daaru ak li nga xamante ni mooy jumaa ji képp kuy taalibe rek war nga cee tàbbal sa loxo ndaxte fii jàpp naa ne mooy deuxième capitale mouridisme te it war na am jumaa ju méngoo ak dayob dëkk wi ak dayob borom daaru loolu nag jàpp naa ne incha allah président de la République dina si jàpp bu baax a baax loolu sañ naa ko wax ndax dama feggoog ki nga xamante ne nii saa su ne lépp lu ñu war a jëm si daaru walla jëm si Touba dina ci taxaw ba mat sëkk dafay bokk toog fi toog fii it ci ñaari tànk dafa gënal mooy sëtub sëñ Touba waaye tamit nekk fi en tant que ministre conseil nga xamante ne am na fi daluwaay bokk fi kon sëñ bi président aussi waxoon na ma bu ñu agsee tamit nañ la sant bu baax sañ bas Abdou Khoudous ndax gis na jàppandal gi nga jàppandale diggante ak gouvernement bi ak sëñ bi ndax yaay bëtam yaay tànkam te lépp loo xamante nii moo war a dox ci gouvernement bi ak jëm si ci sëñ bi jëm si fii daaru ci daaru daaru moxti yaa ngi ci am taxawaay bu rafet taxawaay bu am solo te lépp génnul ndigalu sëñ bi te lépp génnut ñoŋal nekkinu askan wi nekkinu waa taalibe yi kon nag ñu ngi gërëm ñépp sant ñëpp di sàkku rek ci sëñ bi ci turu président de la République Macky mu gën a ñaanal réew mi gën a jàppale réew mi ci ay ñaan ndax xam nañ bu baax yéeneem gis nañ bu baax taxawaayam te it xam na bu baax li mu seqe moom démb ak bakki démb loolu ëmpul benn benn taalibe jërë ngeen jëf wa salaam